man dama jité kurel yu bari jité mbolo yu bari lolou jorma ci wax ak yeen jorma ci wax wa senegal ndax xam nañ ko liñ taxaw tay dal moy nas nas nak moy nouvelle alliance authentique sénégalaise xam ngeen alliance bu authentique moy and ci deug ngir jëriñ sénégal bu dé ci arab bi tax ma tan turu nasit moy bu dé ci arab nas moy nit ñi qul a'uuzu bi naasi maliki naasi ilaahi naasi min sharri waswaas xanaas mouvement boobu aussi dama ko taxaw spécialement pour gunge son excellence le président de la république du Sénégal Macky Sall ndax lan ndax mbir mu nekk boo koy wax dafa war am illa illa ji mooy fi ma bokk ak li ma bokk daf ñoo defal lu ñu kenn mësu defal ndax ñun dañoo am sëriñ am sang Sénégal particularité ak réew yi àddina bi mooy sëriñ si fi ne bo demé Togo amu fa bo demé Benin amu fa bo demé amerique amu fa moy ay nit diiné yu bax yu sel yu sen mam ligéyon ba yalla nangul len ñu amé pench Touba gété tey fu titre foncier bi suñu Touba ko mom man état source khalifa wa koy joxe Macky ñëw nii yi ne ci réew mi penc mu ne dana woté gam wala magal wala ziar kon jaaduna pench mu ci né am pale pench mu ci né def na palais dafa na ko kër sëñ Abdoulaye Yakhine bu Thiès dafa na ko si Abib Sakho bu Ngeexoox def na ko Kaolack def ko Tivaouane def ko ci Masaalikul Jinaan ngir waa kër sëñ Touba def ko Medina Baye def ko Laaye def ko ci kër diine yëpp neexutu lim arabisant man bi may am bac arab benn arabisant mënu woon ko université léegi nag tey moom taxaw na ku am bac arab mën a dugg ci université li ma leen wax rek lu ñu mën a vérifier la ENAM may fii diplomate yi di génne ak administrateur yi arabisants yi amuñu woon accès pour mën faa dugg ubbil na leen ko PSE mooy plan Sénégal émergent nga xam ni 2013 tàmbali ba 2039 te 2039 du fi ndax moom mandaam si nga gungee ba mu gagné dafay nekkaat ba 2024 kon su defee loo xam ne dafay continuer Sénégalais yi ba 2039 mooy loolu mooy naataange Sénégal mu jël plan Sénégal émergent ni damaa bëgg ñu ma ci wéttali boole ma ma a ci biir ni ñëw leen saytu le ma sama plan bi nga xam ne mooy naataanga Sénégal loolu nag moo tax ñu bëgg ko delloo njukkal ci naas xam nga koy wut mbooloo moom da koy wutal mbooloo rek mbooloo la bëgg fu dëkk bu ne Sénégal tey jii su ma jógee fii rek danaa commencé woote lii ma wax fii dina daj àdduna ndax ay télévision fi nekk ak rajo te ku bëri xamee la bëri soppee bëri am di jàmm bëri kuréel ku xam ne amee dugg na da dugg fi ñu dugg nag mooy dugg jàppale ko wéttali ko mu gañe lii gañe lee dinañ wàcce kaamil ginnaaw suba ca Canaba man ak sëñ Omar dem mii nañ ànd ak kër diine yëpp ak waa kër alaaji amat njëgéen ànd ak fekk daara suñ daara suñ mëndike seek ca Canaba ñu wàcce fa ay kaamil pour jàmm am ak stabilité ci réew mi ndax loolu yàgg naa ko def man chaque année bu élection amee damay woote fii ensemble pour des élections calmes et apaisées donc loolu moom affaireu citoyen sénégalais chef de l'île bu ñaan la waye man fi ma toll ni fu ne mom gis ni tay limay tambalé dox moy fexé ba ma ki gagné rek né xakañu na ba ke yonent yalla muhammad ya rasulillahi ya rasulillahi ji wa ya ne xaway muhammad rasulillahi fakrim bi ci dara jam fakrim bi ya rasulillahi fakrim bi ci dara jam la ñëmel yonent yalla muhammad lepp lu yéer mbaate luy dox mbaate luy raam ci daraja yi sama waa joojee ma kenn du yonent yàlla muhammad jaaraama nasru diine mbarum sëriñ murtala ma ne su daane ma ngay takkay ndombaam fa tey diiwaan jaaraama see muhammadul murtala jaaraama see Muhammadul Murtala sawaay du ñeewaayi keneen sawaay du xaj ci jëm feneen deesu la gëm di gëm leneen sa diina doy na xarnu bi jàmbaari seexu na Muhammadul Murtala fakk lu mën a rab ana daje na fàtte mag président Sall Ahmed Saloum Dieng yegsi na jàmbaar ji moo ko xëcc leer na Ousmane bëgg sa réew ci gëmbuur bi yàlla la bokk ca la koy defar waru gar la wenn askan wenn jëmuwaay wenn ngëm liy defar Sénégal réew mi nañu bokk te booloo àndandoo liggéeyal Sénégal suñu màndargay réew kattan nag njàmbaar lay wone guy geeg gaynde gi ca Sénégal doole lay wone raayaw réew mi taaru raayam réew mi taaru na yëkkati ko war na doomi réew mi bul romb lu ñaaw mbaa lu yàq defaral sa réew mi bul xool mbaa ngay xaar li lay jariñ ci réew mi xaymaal te saytu li nga jariñ sa réew mi bàkku réew meeg raayaam wi sargal leen lu war la fu ñu rëcc bàkku réew mi yëkkati fa raayaam wi na nga dal teey sargal sa réew Ahmed Saloum Dieng Nasruddin patriote bi laay wayal jàmbaar ji yegg na taalibeb Cheikhul Khadim baa ngi teraanga ga suñu ànd ba yàgg na Ousmane Diagne ey boo tëddee nelawal Njaay gayndeg baroo digee ana Biram Juuf Biram mu bàjjan daba seen Biram naam Juuf Biram dikk na ey Biram bu yegsee mu gën a leen bàyyi mu man de kontaan naa. ne président Macky Sall recevoir na ko Petrosen. moom mii moo ko joxoon lenge yi. nee na moom mii di naa Ousmane moo ko joxoon lenge yi. loolu kon bu fekkee teew na fi. loolu nag kon bu fekkee ni président Ousmane teew na fi. muy kilifa président. nee na président def ko kilifa muy kilifaam. mu donc muy sama kilifa. nee na kon moom it di kilifaam. donc ñu ngi koy jox wàccuwaayam. nee kon monsieur Ousmane Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam bu baax. bi gën kawe. bi gën a kawe. ah li ma bëgg a wax nag. nee na ngeen baal ma waa Thiès. nee na ngeen baal ko tuuti rek waa li may bëgg a wax mat na dix neuf ans. nee li muy bëgg a wax mat na dix neuf ans. ci ren ma dund ko ak jëmm ji. nee mu dund ko ak jëmm ji nga xamante ne mooy Cheikh Ahmed Saloum. keneen ku toog fii dund moom. nee na keneen ku toog fii dund koog moom. moom xam na. nee président Cheikh Ahmed Saloum xam na. man xam naa. nee moom bii Daouda xam na. ñuy dox ay jéego nag. nee na ñu dox ay jéego nag. tàggoowuñu benn yoon. nee na mosu ñoo taxalikoo. amul benn événement. nee na amul benn événement. bu muy def fii. bu muy def fii. te sama carte du ñëw. nee te kartam du ñëw. te dana ma woo. une semaine. nee te dina ko woo une semaine à l'avance. nee na de fu ko woowee. ba bis bi dég dég si. nee ba bis bi yegg si. heure bi jot ba heure bi jot. daf may soññ. nee daf koy soññ. kon kii kenn mënu ko fay. Né kon Cheikh Ahmed Saloum mbaaxam kenn mënu koo nat kenn mënu koo fay. nee na yéen ñii yéen waa Thiès li ngeen gis rek. waaye nag ne waa Thiès li ngeen gis. loolu ngeen mën xam. nee na loolu rek ngeen mën xam. man nga ànd ak moom tukki fu ne. na moom mi nga xamante ni tabaarkàlla ànd na tukki fu av xam capacité xam capacité xam li mu mën. xam mu mën. xëy na bu ngeen xamoon loolu. nee na xëy na bu fekkoon waa Thiès xamee nañ ko noonu. gën a jariñ ci. nee danañ gën a jariñ ci moom. man de jariñ naa moom. nee na moom mii de jariñ na ci jariñ na ci moom. ci xelam. nee ci xelam. ci conseil am. ci conseil am. ci waxtaanam. ci waxtaanam. ci digleem. ci digleem. maa ngi koy sant. nee na moo ngi koy sant. moo ngi koy gërëm. nee di ko gërëm. li ci des nag. nee li ci des nag. man dafa kontaan. nee na moom dafa kontaan. ndax man ma Macky Sall. nee na ndax président Macky Sall. li ma leen wax Petrosen 2002 la de. nee na li ma wax Petrosen nee na président Ousmane Ndiaye mii xam na li muy wax. nee te loolu yàgg na. nee na loolu du tey. nee na pour dégg loolu du tey. waaye dama am lu ma bëgg. nee na waaye daa am lu sedd xolam mu bët ci. dama am président lu ma santoon. nee dafa am lu ko président sañtoon ci sama njaboot. nee na ci njabootam. ak ku féete randu leen. ak képp ku féete randu leen. ma koy doxal. nee na mu koy doxal. booba ak léegi. nee na booba ak léegi nag. matagul dara fukki fan ak nee 15 jours rek ci lay toll. waaye. waaye nag. man sama xel dafa dal. waaye xelam dal na. ndax moom. ndax moom. mosul dugg. musta dugg. lu ma duggul. lu mu duggul. man mosuma dugg. nee na moom musta dugg moom it daawul. loo xam ne ah Ahmed Sarr dugg ci. kon ndokk moom. nee kon ndokk nag. man foofu laay nee na sant ba mu ta santeeg moom ci président Macky Sall. xam kii. nee ku xam Cheikh Ahmed. xam jotaayam. xam jotaayam. xam li nga xamante ne xam li nga xamante ne def na ko ci yoonu. te mu am ci ay seere. bu jàppale nee na bu ñëwee di jàppale président. ñëpp ñu nee na ñëpp ñu doon jàppale président. seen xel war na gën dal. ndax. ndax nag. ni mu mel. ni mu mel. ak jikkoom ak jikkoom. ak relation am ak relation am nag. ak nee na relation bi yemul Thiès Sénégal gépp la wër. li may wax nag. nee na lii muy seede nag. yàlla rek a tax yàlla rek a tax nag. moom mii xam na loolu. nee na Cheikh Ahmed xam na loolu. kon du ma wax dara ngir. nee Daawuda xam nañ la ñoo yow a dëkk doo wax dara loo xam ne ngis tala tax. dara ngir alal. nee na waxoo dara ngir alal. dara lu nee du wax dara ngir profit. li gëm mooy. nee na li mu gëm mooy. li mu seq ak nit ki. yàlla rek mën koo seede. loolu lay seede ci moom. donc président Ousmane. nee kon président Ousmane. ànd nga ak ñu nee na ànd nga ñu bari. waa Thiès yëpp ñu ngi lay jàppale. waa Thiès ñu ngi lay jàppale. waaye nag. waaye nag. mën naa ni. waaye mën na ni nag. am nga Ahmed. sagam am nga Ahmed Saloum Dieng. ñeenti fan yi mën ngaa tëdd nelaw. nee na ñeenti fan yii mus nga mën ngaa tëdd nelaw. mën ngaa tëdd nelaw mën ngaa tëdd nelaw. ñii nag laay waxal ñii nekk waa Thiès. nee na ñun Thiès waaye nag lay waxal. dafa am loo xamee ni. nee dafa am loo xamante ni nag. weddi gis bokku ci. weddi gis bokku ci. man président Macky Sall. nee ndax président Macky Sall. kuy waxal yàlla. nee kuy waxal yàlla nag. damaa bëgg assistance bi. nee dafa bëgg assistance bi yëpp. ñu wax ma benn. nee na ñu wax ko benn. benn rubrique. nee na benn rubrique. boo xam nañ naan lu ci président Macky Sall def. nee na ñu wax ko benn rubrique boo xam lu ci président Macky Sall def. muy ci mbay. muy ci mbay. muy ci santé. muy ci santé. muy ci euh, développement. muy ci développement. muy infrastructure. muy emploi. dama bëgg. nee dafa bëgg nag. mën a jóg ni ma. ku mën a jóg ni ko. lii président Macky Sall. lii président Macky Sall. góorgóorlu wu ci. góorgóorlu ci def ca dara. tàmbali wu ci. tàmbali nañ ma ko wax nee nañ ko ko wax. waa kiy def lii. waaye ne ki def ki defal fépp. di def lii di góor góorgóorlu di def lii di góor góor góorgóorlu. suñu bët nekk suñu bët. mais kooku nañ ko ni waaw. mais kooku nag nañ ko ni waaw nag boo. mais kon nag. ne kon nag. li gën a ci xelu xelu doomu bi gën a gàtt. nee na li gën a gàtt ci xelu doomu aadama. mooy président Macky Sall tey président Macky Sall tey. nee su ko doon noté sur 20. nee na ngeen di laaj ndax am na moyen wala amul moyen nag. am na moyen ah, nee na am na moyen. waaw comme moyen ci école mais nag daa war a passé rek. en classe supérieure. kon nag classe supérieure bi nag mooy deuxième mandat na ko ko fal. yëf yi nag fi mu gën a neexee. nee na yëf yi nag fi a neexee. mooy ñun waa mooy ñun waa Thiès. dañoo war a xam nag ni suñu gëdd. nee dañoo war a xam nag ñun suñu gëdd. tey jii bu ñu demee ba jam ñaajo raw ñu. nee tey bu ñu demee ba jam ñaajo raw ñu. booba da fekk ñun wa doomu Thiès ñoo dox ni da fekk ni ñun wa doomu Thiès ñi nak ñoo xamul suñu bop ku nangu ta bayyi li nga nek ne ku nangu ta bayyi li nga bop do am li nga xam mo gën ci yow ne do am nak li nga xam mo gën ci yow mais dañoo melni ka que dañ ñoo jël tay lañu mais dafa melni ni dañoo gën dañoo jël rek tay lañu ah kon bok tay buñu ñu gisee doomu Thiès yi ne kon tay buñu ñu gisee ku melni Ahmed Saloum jeng ku melni Ousmane Ndiaye ku melni Ousmane Ndiaye ñew dik nak ne dañu taxaw ñew dik taxaw wa Thiès wa Thiès duñu def ñoom mooy ñëw dëkk ak gën a ànd ak ñoom mais kon nag li war a def mooy ñëw Ahmed Saloum mm. Mm. nee na Ahmed Saloum maa ngi fëddaliwaat sama kóllëre nee na mi ngi fëddaliwaat kóllëreem loo nekk maa nga ca mm. nee loo ne maa nga ca lu ma doon béy ci yoonu AFPT naa bay lu ko raw ci yow lu mu doon bay ci yoonu AFP dana béy tey ci yow lu ko raw ah nee di la xamal ni kontaan nañ bu baax ci ànd gi nga ànd ak président Ousmane Ndiaye pour jàppale président Macky Sall. lu mu nekk nee na loo ne ñoo nga ca. te dinañ ko la jàppale bu baax a baax. ndax nag tabarkalla macha allah Cheikh amet ñëpp seede nañu yow diine rek moo la ñor. président Macky Sall ndax président Macky nag ku ne xam ne daa def lu am solo ci diine yi. nee sëñ daam wax na ko léegi. wax ji du mën allah xolam seet na wax ji sax du ko guddal. waaye kontaan na lool. waaye gën naa ko jàpp. gën na laa jàpp. te incha allahu rabi nee te incha allahu rabi di nga xam ni gën na laa jàpp. maa ngi jóg taxaw pour rendre hommage à ton autorité morale et religieuse. dama doon pour euh, wax honneur honneur bi ma Cheikh. Ahmed Saloum jox tey ma ko ci remercier au nom du président de la république Invitez-vous, invitez wu loo ko boo ko ko woon wax ni da nga yaa ngi def lii mais man comme damay liggéey ak moom nee naa ko maa ngi ñëw donc xam ne ni maa ngi fii euh, may remercier imam remercier autorité religieuse monsieur Seck sëñ Seck Madické Seck euh, may remercier xaritu Cheikh Ahmed di remercier euh, Anas mag Michael Michael Michael Bay. ak euh, sama ñi andal, àndal El Hadj Abdoul Aziz El Hadj Youssou Diop Abdoulaye si Saint-Louis ñi andal, àndal ñëpp maa di remercier ci accompagnement bi ngay pour honorer Cheikh Ahmed Sall li ma tey li ma gën a neex ci daje bi tey mooy da nga woote jàppale sama xarit sama rag mag yi Sall parce que Macky Sall yàlla moo nu boole depuis bi mu amee nekk jeune ingénieur ingénieur di wut stage wut seet sama ma nekk directeur Lam Lam Phosphate de Thiès ci la ñu ànd depuis lors mu nekk stage ba tey mu nekk président la la république suñu ànd mosul ñaaw dafa nekk toujours ànd bi jëm kaw. loolu dafa nekk honneur pour man que mu ñëw dégg ci sa baat seen Cheikh Ahmed euh, Saloum que yaa ngi jàppale Macky Sall ci liggéey bi mu dem ci Sénégal Macky ingénieur la dafay tabax Sénégal. tabax Sénégal nag du pour pour moom moo tax mu koy tabax c'est pour les générations futures xalaatam xalaatu 2035 2039 comme ni ko sëriñ bi waxee léegi ci liggéey boobu mu entamé di ko def moo tax ñu ko ci jàppale te képp koo xam ni sëriñ Cheikh yaa ngi yaa ngi koy jàpp yaa ngi koy jàppale ak ñi lay jàppale maa leen di remercier bu baax ci action boobu la léegi lancement ce mouvement NAS je euh, suis représenté je suis ci je suis de pour que mouvement mouvement soit réel, un mouvement mondial au niveau mondial ci jàppale pour dañ la